waaw affaire yi ni mu fa demee noonu xam nga man damaa nekk ndaw nekk si koñ bi parce que ndaw moom maanaam boo ko nekkee euh, du ñàkk nga wax ñoo xamante si maanaam ñoom ngay àndal waaw léegi nag maam samay xarit yoo xamante ni man dama doon ànd ñoom di ànd ak ñoom di ànd ak ñoom ba ma nekkee xale ba ba ni ma màggee man ñoom laa xam ñoom laay àndal waaw mën naa ne lu ci bëree bëree bëree ñoo ma ko xamal ba benn jour euh, sama sama sama sama benn xarit ku ñu Ibrahima ñu jàpp ko. léegi bu ñu ko jàppee yóbbu ko brigade bu ndindi léegi buñ ñu ko jàppee yóbbu ko foofu noonu man maa xëyoon suba doon yóbbul ko ndékki léegi bu ñu ko yóbbulee ndékki commandant bi téema commandant bi bi ma téyee Babacar Moussa Diallo la tudd mooy commandant bi fi njëkkoon a nekk ñu ko Babacar Moussa Diallo léegi affecté nañ ko léegi bi ma téyee mu ne ma man maa dajji këram waaw jël ay bagages am waaw mu jàpp ma dóor ma def ma lu ko neex waaw maas ma courant jàpp sama awra yi maas ko courant ba léegi nii <clears throat> bën bën yaa ngi ci waaw seen affaire appareil yooyu noonu mi ngi ci waaw yàqal ma lu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri <clears throat> daal may jël yóbbu ma njaareem maag sama xarit boobu ma àndaloon ak keneen mi tàppeel ñu kenn ku nekk six paquet waaw mu ne ñun six paquet yi saafara indien moom la ñu fekkeel ñu àggee ñu àtte ñu ñu tëj ñu un mois léegi bu ñu tëjee un mois bu ñu demee ba nga xam ne si ñu bëgg signé pour ñibbi man mu jël si waat ma <clears throat> léegi bi ma jël si waatee man mu jël si waat ma léegi ma jël si waatee mu yóbbu ma këram safrula bi ma jëlsiwaatee mu yóbbu ma ci brigade bi jàpp ma di ma dóor di ma dóor di ma dóor di ma dóor naa man maa dajji këram man maa jël ay bagages am jàpp ma leen lu ko neex mu def ma ko jàpp ma dóor mu ba bëgg a def bu guddi googu noonu hôpital laa fanaan yóbbu ma hôpitalu Ndindi ma àgg hôpital boobu noonu mënuñu maa faj ñu yóbbu ma hôpitalu waaw bi ma àggee foofu tamit jox ma ay xëy suba ñu yóbbu ma njaareem ba ni ñu ma yóbbee njaareem ma àggee hôpital bu mag balaa nekkoon ba ni yàlla dogalee ma tane ñu téema foofu téema téema téema téema téema téema téema foofu presque ay dix mois jàpp onze mois ñu téema ko foofu noonu yàqal ma sama lu bëree bëree bëree bëree bëree bëree parce que instant boobu noonu may dem foofu noonu man maa ngi benn soxna soxna sa Alsaan ñang la tudd dëkk Louga ak beneen soxna bu ñuy wax Sofi Mbacke waaw ñoom ñaar ñëpp mën naa ne samay loxo lañ ci lañ nekkoon <coughs> des commandant yi bi ma jàppee dóor ma yóbbu ma foofu noonu man maa daaji këram man maa jël ay bagaasam façon métti du nekk mu teg ma ko waaw samay soxna tamit mën naa ne ci problème boobu noonu si laa leen ñàkkee waaw ba léegi fii may wax ak yow nii nii nii nii nii ñooñu noonu mën naa ne nekku duñ samay soxna mais isaan yi nii yàlla suñu borom dogal na maanaam mayaat na ma keneen amaat naa beneen soxna waaw maa ngi si jaamu yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax mais sama problème boobu noonu li mu si metti dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nit ñu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri dañoo jàpp ne loolu noonu man maa ko def te loolu noonu wallaahi lancim billaahi wallaahi taala loolu noonu nekkul sama jikko te defu ko xëy na kay commanda bi daf ma inoon rek waaw am sama benn mag bu jigéen bu ñu wax Ndeye Mariam Guèye dem ci commanda bi ne man maa jël man man doon naa ko jaay ay matelas boo xam ne si dama ko sàcc te matelas boobu noonu benn xarit benn xale bu ñu waxoon Tafa Ndiaye moom moo jige woon Daaru Jolof nekkoon fii nii ci kër gi waaw man maa ko boole woon oto yi sama mujj cee nekk Tafa Ndiaye boobu noonu la benn yaayam bu ndaw mayoon benn matelas léegi mu bëggoon ko jaay Ndeye Mariam Guèye léegi mu ko ko bëggee jaay. léegi nday daal daan bi mu ko bëggee jaay mu ne mu xalaat ne su ma ko demee ci nday mereem di ko jaay matelas bi mën na may euh, lépp wala mu may fay loo xam ne suñu du baax mu jox ma matelas bi man ma jaay ko ko léegi bi ma koy jaay matelas bi mu fay ma ci ma wax ko cinquante mille mu ne ma trente mille franc la am mu jox ma quinze mille après mu desel ma quinze mille ci des déggoowuñ léegi nag après mu mujj ko bàyyi ma jëlaa matelas bi joxaat ko borom pare ci léegi nag commanda bi bi ñu daajee këram léegi sama mag boobu noonu fekk temps boobu noonu day génn commanda bi mu ne man maa ko mu ne fekk mi gën a commanda bi mu ne mu dem si commanda bi mu ne ko wal xaadim nga laaj ko ba xam parce que jëloon na yoroon na fi benn mat laa boo xam ne si dama ko doon jaay te matelas boobu noonu moom nga xam naa da waaw léegi woo ko nga laaj ko ba xam moo daaj si kër wala daaj ko wala ba moom xam na ci dara woo nga laaj ko tant que commanda jël alalam boo ko waxee loolu noonu faaw mu def recherche su xool waaw commanda bi ba tey loolu mi réew ko ci waaw xam naa ne diñ ko wax rek mu jàpp ne loolu la fa demee euh, mu jàpp ne noonu la fa demee te demeewu fa noonu waaw mais bi mu nekkee ci biir njaarim googu noonu biir kaso boobu noonu façon métit bu nekk dund naa ko foofu wallaahi lansim waaw parce que foofu noonu tamit biir kaso bi lekk gi baaxul et puis tamit seen naan doyul seen ventilo yi doyul seen néeg yi tàng na xat na waaw xam nga benn néeg boo xamante si ni néeg boo xamante si nii ñetti nit ñeenti nit sax buñ ci tëddee mu ñu bëgg jël di ci di ci def ay téeméeri personnes wala wala wala wala ay wala cent cent quarante personnes xam nga loolu noonu du yoon loolu noonu du yoon kaso ba tàng bee bëgg dee métit bi ak tàngaay bi ak not bi fa nekk lekkuñu ba suur ñu woon ba suur naan ñu woon ba mànd yu ci bëree bëree bëri bëri ñu ñu doon dal foofu noonu suñu parent yi bu ñu fa daan ñëw di ma seet si bu ñu ma waxee daanaka moom maa ngi lekk ba suur maa ngi naan ba mandi waaw manqué ma fi dara xanaa liberté bi fekk na walaay lancé lu ma fay dund mel na man kese maa koy xam mais say parents a ñëw ngeen ne leen maa ngi fiy def nii noonu yàlla dogal nekkee fii nii sama soxna soosu noonu yàlla dogal bi ma amee problème boobu noonu mu demoon seen kër dem demee tamit yaayam jël ko dem may ko keneen waaw te kim ko may avant mu koy may kooku noonu man mayu ma ko woon baat mais instant yi nii instant yi nii nii nii nii may naa ko baat parce que ñoom may nañu baat seen bopp ba pare kon dama naa man naa man may naa ko baay may naa ko baat waaw loolu daal laa xamante si ni moo am li nga xamante si ni maanaam moom laa bëggoon a jàllale te it naqari woon na ma lool lool lool lool lool ba si kanamu yàlla